lu am solo la parce que euh, dongo daara amul boroom jom rek am xam nga bu ñu bëggee nax loolu la ñuy wax rek. stas nga ne ndongo daara amul. borom jom rek a am borom rek a am. waaw réew réew mu mën a doon ci àddina boo fa nekkee la la réew may def ne ca ca bax dugg ca deel wax di lijjanti. waaye gis nga gars yi bu ñu bëggee nax danaan féetaleen ak daara ji yéen waa daara ji bu ko defee ñu ne ñee yéen waa nangam loolu politique la bu yàgg bu fi nekk boo xam ne bii dañ ko dugal ci suñu xel yi waaye as gor moom as gor moom na na na taxaw rek waaw waaw waaw moom daal noonu la rek. Hmm. waaw noonu la rek. waaw ah, kon ñun ndokkale ko bu baax a baax. a baax waaw ñu ngi koy ndokkale bu baax a baax. loolu moom euh, ñun ñëpp ko bokk. waaw ñoo ko bokk parce que moom moom moom kilifa la loolu kay waxoon na ma ko nag jamono yële ñu génn. Hmm. waaye xëy na nun presse bi nañ ca waroon a taxawee dañ ko xawoon a kii waaye nag lu lu mat a siiwal la ndax bu nee diw bokk na ci ñi nga xam ne ñooy lim bi gën a. ñu ni bàyyi xel ci déglu wala yu demee noonu wala ci xam-xam ak yépp hmm. loolu fierté la maanaam mbégte la waaw te nit nag itam bu bëggee noppalu ab cër boo ko yàlla def joxee nit da ko koy yéene. waaw waaw boo bëggee noppalu. bul soxoree kenn dara. boo bëggee noppalu. waaw bul soxoree kenn dara. waaw ah. xam nga lu tax. waaw parce que boo soxoree kenn dara andil nga sa bopp fitna joo xam ji yaa ko yenn sa bopp. Hmm. léegi yow le fait que diw li muy liggéey wala li muy def neexu la. Hmm. coono bi lay naqari ba loolu neexu la ku la ko yan. yaa ko yan sa bopp di. wallaahi ah ku la ko yan. parce que yow yaa am xalaatu dugal ci sa bopp ne. Mhm. Nicolas mii kat neexuma. Mhm. wala cër bi ko yàlla jox wala ni muy animé neexuma. Mhm. léegi yow comme yow loolu loolu dugal ko ko ci sa bopp. léegi coono bi balaa lakk kenn dalay lakk ba noppi. wallaahi sa jëkk lay njëkk a lakk. wallaahi ah, moo tax. moo moo ah, moo moo tax. Euh, euh, xamu nu ko fa dinaa yaa xaalixa seytaani wax min kaydihi wa salabil imaan xaw ma nu ko waxkat ba waxee tey ci sunu ñaan wasifa wa mhm. maanaam gis nga seytaane boo koy boo koy muslu da nga koy muslu ci pexeem ak rocc gi muy rocc imaan gis nga bu mhm. roccee imaan mhm. xam nga lu fay des eh, lu ñu koy waxee coquille vide la ko français yu tuddee bu maanaam bu fekkee dara nekkatu fi bruit kese kese moo fi ne te bruit boobu day nekk bruit néfaste boo xam ne bii du la jurul lu dul dellu ginnaaw maa la ko wax waaw am na solo Euh, sant nañ la gërëm nañ la bu baax a baax dellu euh, félicité oustaz Alioune Sall ci euh, ak di ko ndokkale ci ndam loole mu indil Sénégal ak waa groupe Sud Communication groupe Sud Communication bi nga xam ne rajo bi mu ngi waajal célébrer ses vingt six ans gannaaw ëllëg loolu xam naa ne dinañ ci gën a dellu si bu ci kanamee tuuti maa ngi wax ne sànq yaa ngi ay micro yu bees yaa ngi ay studio yu bees yaa ngi ay table yu bees. loolu lépp jëmmal liggéey bu am solo bi nga xam ne. yéen a ngi ci kon euh, gannaaw yéen a ñu indi lii lépp ci jumtukaay euh, ngir gën a mën a yokk doole rajo bi ñu ngi leen ci sant bu baax di leen ci gërëm oustaz. waaw waaw ah déedéet macha allah waaw ñu ngi ci xam nga góorgóorlu mooy góor. dëgg la. Euh, mooy tax a nekk góor boo gisee boo nekkee ci kër. Hmm. wala benn société comme fu mel ne groupe Sud communication wala rajo bi ci boppam. Hmm. ñu ñëpp ñu def benn say takk ko rek di liggéey am koo xam ne kii dafa laxasaa yu nekk ca kaw di def la mu mën ak la mu mënul. Euh, toujours muy améliorer comme le directeur là il faut le dire toujours mi ngi mi ngi améliorer di gën a kooku da ko war a gërëm sant ko. Mhm. looloo gën a wóor. parce que koo xam ne ki tey bu defee benn fukk. Mhm. bu liggéey moom même bu ko maneek bu ko mënul la ma la waxoon góor pur day def lu mënul. wallaahi mbëkk rek di dem. ñu naan sa waay xanaa daa dof ngay dem rek. léegi nag bi xajaril kat di boobu nag. tukk mhm. tasabul maani ci la yàlla di ñëwee boo nekkee ci effort effort yi day ñëw pousse ko mu dem. doo mu def benn jógu aujourd'hui euh, démb maa ngi waxtaan ak directeur mu naan ma non baal ba xëy si suba rek da nga fekk foofu micro yi. Mhm. on a eu énormément de matériel boo xam ne bii fi mu toll nii lépp. macha allah dafa bees matériel dernière génération. absolument micro yi mooy micro yi mujjee génn ci àdduna bi. waaw mooy si sophistiqué. waaw très bi nga xam ne ci laa ne. mooy taabal yi mujjee génn ci àdduna bi ci wàllu rajo ci sophistiqué. très numérique numérique. di góoma rek oustaz. akamalaa ah, dégg léegi nag loolu loolu moo tax kooku dañ koy dañ koy ñaanal mu gudd fan ak wér ndax loolu ndox ki lay jàppale ba noppi itam te te toujours muy def un pas en avant malgré les difficultés hmm? euh, mu mu mu ruuñu ko. Euh, te te nga toll foo xam ne fii euh, dimbali gi sax bariwul ndeysaan ñu waroon a jàpp jàpp ñu nam waroon a demee xaw naa des mais nga ànd ak yàlla rek parce que yàlla moom moom boo àndeek moom bàyyi kook say mbir wa man yatawakkal ala llaahi waa ji fa huwa hasbuhu mm. yàlla nee na ku ma ku ma ku ma ku ma ku ma dénk sa cumbukaay ma téel la ko waaw mbër yi ni ñuy def bu nee ba ca làng ga ñu teg seen i butéel fëpp cummukaay ki jox jox ko benn waay ku ko def yàlla rek yàlla yàlla téyel ko téyel ko ci mikaayam hmm. waaw fa tabaarakallaa euh, am na solo euh, sant gërëm bu baax a baax mboolem direction bu première radio d'information du Sénégal euh, ci loolee xam naa ne dinañ ci gën a ñëw parce que comme je l'ai rappelé tout à l'heure gannaaw ëllëg la ñuy célébrer vingt six ans d'existence rajo bi jiitu ci wàllu rajo privé ci Sénégal wante loolee lépp bu weesoo coronavirus moom mu ngay wéyandi ah oustaz coronavirus a ngi wéyandi mu ngay def la muy def saa su ne euh, tey ba ñu defee xayma bi ak waa ministère de la santé et de l' sociale nemmeeku nañ ne au Sénégal euh, trois nouveaux décès ci coronavirus boobee am na ci 112 tests positifs euh, la nemmeeku ak vingt 27. patients qui sont actuellement en réanimation 27 patients en réanimation nag euh, takku takku na lool euh, coronavirus googe tax euh, xalifa général de Tidiane ci week bi am na ay dénkaane yi nga xam ne jox na ko autorités yi maanaam kilifa yi concernant coronavirus bi am na jàngat boo xam ne mën na ko cee def ci wàllu du d'une façon philosophique ci waxtaan bu am solo boobe wante it ci adduna ci boppam lañu war a jàngat yëpp ci wàllu coronavirus boobee def naa discours xalif bi euh, am na solo loolu oustaz. xalif général de Tidiane euh, Serigne Babacar Sy Mansour wax na wax yu ama ama am solo presse bi tey ci suba euh, quotidien yu bare bare bari bi ñu xëyee relaté nañ ko fàttaliwaat ko bokk na ci li mu wax mooy gouvernement bi dafa démissionné waaw wax na dëgg mooy gouvernement bi fam lam waroon a def da koo deful. mooy dafa tekki ndombak tànkam ci mbir mii nga xam ne moom moo di coronavirus bi néewuñu liggéeyuñu néewuñu médecins yi liggéeyuñu waaye dafa am fu ñu toll foo xam ne fii li xalifa bi wax lu mat a bàyyi xel la nee na bu fekkente ne dañoo dem ba mu yàgg ñu ne doomu jàngoro ji kat mi ngi fi waaye demagul waaye léegi nañu déconfiné ñu déconfiné nag léegi yëf yi gën a yokku mu ne kon confinement ban doon def lu mu doon jariñ te loolu te loo loolu loolat xel la loolat xel la donc ñun li war a def mooy xam ne am na taxawaay yoo xam ne buñ ko taxawul lii kilifa gi wax ne se protéger ou mourir parce que am na foo xam ne fii da ngay fagaru fegu ah wala la ca des nag moom mbiru yàlla la donc wax la joo xam ne ji yow ci sa bopp sax am na bés ci émission bi ñuy def fii nga am ci yu bari yoo xam ni. Mm. coos nga ko fi ñun ñaar jot nañ ko fi waxtaanee yu demee noonu waaye dafa jóge ci kàddu kilifa gi nag mu gën a nekk lu lu gën a daj. Mm. moom moom moom moom Cheikhul Khalifa. Mm. donc moom la ñëpp di c'est-à-dire que li ñëpp gis rek la wax li ñëpp gis la wax waaw. la ñëpp gis la wax. am na solo euh, mën nañ ci déglu sax benn benn extrait bu ndaw. Hmm. Euh, léegi ñu dem déglu euh, kilifa gi xalif bi. waxtaan leen nit ñi. wax leen li xew. wax leen li xew. nee bu leen ko tuus. li xew. li xew. mooy. mooy. di nga yey nee te dara ñu doon faj sax ne boo demee tey ci hôpitaux yi fajkat yi sax am na ci ñoo xam ne ñu ngi faat waxuma la nag ña ñuy faj waaye ki lay faj bu feebaree foo jëm wax leen nit ñi communication bi dafa bi dafa na yaatu fokk leen confiné wu leen takk leen seen gémmiñ pouvoir du pouvoir du autorité du autorité information la information la bu ñuy wax ni am na lu fi xew am na lu fi xew ku rawalewul sa bopp ku rawalewul sa bopp ñun mënuñu ci dara ñu wax ko nit Euh, mu ngi noonu ñu jëlee ko donc ci kàddu yi xalif bi euh, tuuti rek ci discours bu am solo boobee nga xam ne def na ko euh, ci weekend bile wante it surtout dénkaane nit ñi par rapport ak fagaru gi ñu war a fagaru wante it dénkaane autorités yi par rapport ak mesures yi nga xam ne ñu ngi nekk di ko jël d'ailleurs ci mesures yooyu maa ngi gis ci information ne xam nga booboo ak léegi ñu ngi ci état d'urgence borom njiitu réew mi dafa décider ci xibaar yi ñuy liir ne dafay prolonger boobee état d'urgence defe naa loolu dafay fekk si également euh, prolongation li ñuy li ñuy waxtaanee. waaw xam nga xam nga état d'urgence moom moom da conseil des ministres bi passé waxoon na ko mais boo xoolee doo doo xamagun peut-être effet yi nga xam ne def na ko parce que boobu ba léegi gaa yaa ngi sàcc ci kër yi gaa yaa ngi euh, dem ci yenn heures yi di génn di doo comprendre 23 heures léegi daanaka ku fekk ci biti daanaka Euh, fañ nekkoon démb ak barki démb xëy na bu ñu fa delluwaatee dana metti waaye jéem naa télé mënuma dellu naa ginnaaw dara nekku ci du gàcce ñoom mënoon nañoo dellusiwaat gën a reconfiné waat nit ñi amul amul benn problème jëlaat ay yeneen mesures yoo xam ne sax mooy gën a mooy mooy gën a dëgër vu que moment bi ñu toll nii doomu jàngoro ji day gën a law parce que nag kilifa boo lambee daj nga dem ba lamb daja daja dajaatu da nga naan xaaral ma dugalaat sama loxo su ma lambee nag daj li ma war a daj ma xëcc nag xool ba xam ndax loolu man naa cee delluwaat gannaaw waaw wala déet parce que pour le moment nii nit ñi mas masque yi ni ñu ko daan takkee takkeetuñ ko noonu rajralo yoo bi bari na xew yi nit ñaa nga cay dem c'est comme si pratiquement euh, doomu jàngaro bi sax néew fi te bés bu ne ñu ne mi ngi gën a yokk moom la xalifa bi wax ne ku protégé da nga faatu hmm. parce que ndax nee na ñiy faj sax na ci ñoo xam ne ñi ñi ngi faatu waa léegi kon est-ce que jaaduwaatul tamit ñu delluwaat ginnaaw seet yeneen i dogal yu ñu war a jëlat mais loolu loolu loolu dafay indi yeneen yeneen yeneen i pexe ak yeneen i conséquences aussi oustaz parce que euh, ba nu jógee ci déconfinement bi bëri na ay réew yoo xam ne parce que xam nga gis nga boo seetloo sax euh, dafa mel ni mouvance la en fait euh, à chaque fois réew yi dafa mel ni dañuy déggoo ci seen doxalin ci wàllu coronavirus bi comme réew yu bëri ci àdduna bi nee nañ confinement moom dootul am xalaatuñu ko ak lu mënte a xew rawatina jamono yi nga xam ne coronavirus mu ngi jógaat ci yeneen i fànn ak yeneen i anam Eh, di gën di faat wante ñoom nee nañ mënatuñoo tëj nit yi parce que nit yi tamit boo leen tëjee jamono yi ñu ne dinañ fi fippu rawatina mu tàng jër jamono yi ci àdduna bi yëpp ah maa ngi gis eh, ay France ak yeneen réew eh, gars yi ngi génn di dem ci géej yi na mu xewee Sénégal mais noonu la xewee ci àdduna bi yëpp ah nit yi ci boppam ñoo mujjee sonn ci confinement bi et tout di génn et ba pare am une certaine forme de relâchement un peu partout à travers le monde def naa loolee voilà ci ci nit la quoi. waaw moo tax man la bu fekkee conduite bu fekkente ne loolu mooy sabab asbaab wala sabab yi tax ñu def loolu kon kay fermons les bouches et voilà et continuons avec le virus ensemble. Ah, nga yaakaar ne euh, euh, prolongation euh, kii bi nii ñuy wax nu mu tuddati état d'urgence bi. waaw mën na am ay ay. non gisuma effet man moom man moom laa gisagul effet yi parce que bu fekkente ne léegi li ñuy def vingt 23 heures lay tàmbali couvre-feu bi xaw ma état d'urgence léegi léegi lan lan lan lan la wàññeegoon ci ci corona bi par contre day yokku. man de loolu laa gis xëy na bu gee beneen sénégalais gisee loo xam ne day wàññeeku mu wax ko mais man de li ma gis mooy prolongé ou pas maladie bi moom mi ngi gën a yokku décès yi mi ngi gën a bari nombre de contamination yi mi ngi gën a bari am na sax yoo xam ne dañ leen importé ñu jaar AIBD ñëw tàbbi ci biir réew mi ah euh, contact communautaire yi mi ngi gën a yokk par conséquent man xamatuma léegi ndogal boobu ñu jëloon ban effet la am techniquement man mënu ma ko mënu ko lijjanti xëy na am na ñu ma ëpp xam ci loolu man xaw ma ko ci biir discours am xalif bi nee na euh, coronavirus médecin du médecin yee koy faj. waaw xam nga xam nga xam nga. xam nga loolu dafa laaj dafa laaj loolu borom xel yi lay waxal. waaw xam nga xam nga maanaam médecin yi évidemment di ñuy def seen liggéey et tout dañ leen ciy jaajëfal mais dafa am lu mu lu mu lu mu laaj ci ci jàngat ci biir. xam nga boo déggee wax boobu lu muy firi. ah astafurlaa ndax yàlla rek a xam nit ki li mu lu ci waxam waaye li ñu ci mën a jàng en tant que mooy médecin bi faj mu wér sax sax fajul waaw. boo déggee wax ji bu baax ki faj mu wér sax fajul ndax ndax kiy faj ci sabab la nekk kiy wéral mooy yàlla waaw loolu mën nañ ko déggee wax boobu parce que bu bu sëriñ bi waxee ne médecins yi du ñoo koy faj am na ñaari am na ñaar ba ñetti déggin déggin bu njëkk bi moom mooy médecins yi même bu ñu ko turee woon faj ko sax fajuñu ko yàllaa ñëw rek parce que ci sabab yi ngay sab ci la ci sababu ci la yàlla di fekk ba la nga faj même bu wéree dafa wér ci bi isnillahi ndax kenn mënu fee faj lu dogalu yàlla àndul kooku kooku déggin la buñ ci am beneen bi ci tegu tamit moom mooy médecins yi duñu ko faj moom mooy ne lu mu mën a doon lu ne bu dee fajoot na ba tey benn la na ci loxo yàlla bokk. loolu rek la affaire tawxiit la rek su ma woon tey médecin bi de tey lii duñ ko mën a faj même buñ demee ba faj ko fajuñu ko yàllaa ñëw parce que parce que ki faj trouvé sax ci dogalu yàlla rek la trouvé kooku nag ki gëm moom ki gëm yàlla moom moom loolu. ndax ku gëm yàlla moom dara xew ci kanamam lu la. ëwwalan loxo yàllaa nga ci biir. voilà kon am na solo ñu bàyyi ci xel bu baax a baax oustaz ñu dem ci whatsapp bi. ayca aywa. bokk ci bile émission jokkoo ak Nicolas wala Maodo fay mën ngeen yónnee seen message wala woote ci numéro whatsapp bile di 77 959 51 53 77 959 51 53. asalaamaaleykum Sud FM oustaz Maodo Faye maa ngi lay nuyu di la sant di la gërëm yow ak Nicolas vraiment seen waxtaan kontaan nañ ko kontaan lañ dool ko li nga def c'est très intéressant mais dama doon ñëw ci wàllu environnement bi nga doon wax sànq affaire yooyu que ci kër laay liggéey agent immobilier laa ko mais des damay gis borom kër yoo xam ne man dama naan xanaa ñii duñu dee parce que dañ ci ñàkk tellement que ba nga xam ne nii da xalaatu woon tey kër gi ana kër gi moo tax li nga wax sànq rek tabax bu bëri jaru xaalis boobu ñu def ci bâtiment yi ko dimbale nit ñi waaw ah, boo deewee say doom doon ko da ci seen bopp quoi nañ xoolal seen bopp tabax yu bëri jaru ko fi jaru ko fi li nga wax rek boo xasee am 40 ans 50 ans mënatoo koo dund boo ci tegaatee 30 ans sax 30 ans 35 ans sax bëri na mu euh, wax de waxtaanee woon semaine bi ñu génn ba ñuy jeexal moom wax nañ ci ba tey te mooy doomu aadama dara du fees biiram lu dul suuf buñ ko dugalee ci biir suuf ndax lu ñëw rek day bëgg a yokkuwaat wutuwaat leneen buñ mënoon a coloniser suuf si sax moom ko ba nga ndax même tey ce matin rek gis nga presse bi am na ay kilifa yu ñu tudd ci ay ay suuf littoral bi dégg nga Lamine Gueye Samaan ca Louga <coughs> ngeen baal ñu nee na nee na fële ca lew na nit ñaa nga fay ñëw euh, homme d'affaires yi nga xam ne dañoo yore xaalis di jënd rek di dajale te pourtant loolu day Eh, yàlla mi ngi koy yàlla mi ngi ñu ci artu artu nañu ci ba tàyyi sax waaye boo jàngee eh, suuratu Ruum mooy les Romains eh, defe naa ni ci aaya yu njëkk ya su ma juumul xaw ma aaya sept wala huit defe naa huit lay war a tollool ci jamono foofu yàllaa ngi wax naan awalam yasiru fil ardi fa suru kayfa kaana aqibatu allazina min qablihim kaanu ashadda minhum quwatan wa asaru al arda waa saru xam nga gis nga gis nga waa sarul arda mooy maanaam ñu ñu ñu bëgg a moomeel suuf si waa amaruha ñu coloniser ko nag faf waaw ak di ko gën a bool bu di gën a dajale rek di gën a dajale rek donte yónnee wëndal ay yonent pour ñu leeral leen waaye ñu def ñu ñu ñu ñuy gën a bëgg alal di gën a dem ba te ñooñu ñooy dem ba mu yàgg nag ñu tooñ seen bopp ndax la leen yàlla tegaloon pour ñu yem mooy yem yem mooy tanduku nekkuñu ca moo tax euh, yàlla ca jeexitalu aaya ba dafa wax naan fa ma kaana laahu li yazlimahum walakin kaanu anfusahum yazlimuun ñoom ñoo tooñ seen bopp maanaam euh, yàllaa ngi wax naan xanaa gisu leen xanaa doxu leen ci kaw suuf si awalam yasiru fil ardi fa kay fa yansuru kayfa kaana aqibatu lazina min qablihim ñi leen jiitu woon naka na leen yàlla mbugale te pourtant ñooñu dañoo amoon doole ci kaw suuf si di jaay colonise nit ñi ña wut ay terrain ña ngay ña ngay ña ngay ña ngay finalité bi mooy dañuy dem a dem ba mu yàgg ñu mel na ku ku ku ku ku tëx gumba ndax leeral gi tegatuñu seen tànk finalement fa ñuy mujj mooy loro goo xam ne gi ñoo tàñ noo ñoo mujj tooñ seen bopp te gis nga euh, Nicolas wax naa la fii ne la coowal suuf baaxul mm. coowal suuf baaxul gis bari na ku ci dugg ca mujj ga nga rëcc ko. Mm. kon yàlla yàlla musalu ci loolu. amiin euh, ñu dem ci ñaareel bi ci whatsapp. Euh, salaamaaleykum maa ngi jaar maa ngi ziar Maodo ak Nicolas maa leen di ziar bu yore yore di ziar di teewlu seen émission bi di ci kontaan lool di ko rafetlu di ñaan yàlla mu yàggal leen fi ngeen yàgg waxtaan ak nit ñi ñu dégg. yàlla may leen wér ak talak fekkee waaye man daal maa ngi doon laaj oustaz te ko léeg-léeg na ci cabaxal waxtaan waxtaan yi muy def nii am na solo lool lool lool lool lool ba tax na maa ngi koy ñaan di jéggalu di di ko di ko ñaanal yàlla mu wax ci julli julli léeg-léeg na ci waxtaan lu bëree bëree bëri di ci ñaax nit ñi oustaz maa ngi la koy sàkk di la ñaan yàlla nga waxtaan ceeg dama aadama yi jërëjëf yal na yàlla taxaw la barkeel la yàlla defal li jaaba jërëjëf mbokk mi euh, wax na lu am solo muy nee na euh, oustaz euh, gannaaw sa soppe la del fàttali jaam ñi njëriñu julli. waa xam nga <laughs> dafa laaj bi laajam bi am na solo de laajam bii day xanaa fàttali rek waaye xam nga julli moom li tax ñuy mën a ràññee ab jullit ak kudul jullit mooy julli maanaam koo koo gis muy julli bay boo nga dogu ci yàlla na ki ab jullit la ak lu mu metti metti metti metti ak lu mu mën a def ci kaw suuf ak tooxi doona gu mën a commettre ci kaw suuf tànk yaa ngi koy gis waxtu di jot muy jël satalaam dem jàpp jublu penku ne allahu akbar kooku jullit la léegi nag lii tax nag yow dootoo nekk jullit mooy boo bàyyee julli waaw beneen bi ci tegu itam mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wir na feeñ na ci hadis yu bare bare bari sax ne julli moom ku ko taxawal rek taxawal nga diine waaye képp ku ko màbbit mabb nga diine waaw li nga xam ne nag rukk na la maanaam ci arkaan yi daf ci am benn boo xam ne bii boo ko taxawalee ci néeg bi néeg bi baax na te mooy mooy sunu charia islam mooy diine ji l'islam bi soo ko màbbee màbb nga diine loolu waxu yonent bi la donc comme néeg bi bant bi nekk ci digg bi bu ne bërëx lépp daanu ci suuf bu ko téyee nekk néeg bi nekk ca kaw mooy julli kon jullit bi dafa war di julli ndax julli ñaan la julli audience la booy def ak sa borom parce que julli toroxlu la ndax su jóot magum jëmm xam nga ne am juróom benn fukki at jàpp juróom-ñaar fukki at booy sëgg di fab sa jébi di ko dóor ci suuf si da ngay toroxlu ah. Ah, magum jëm la mooy toroxlu oustaz. toroxlu mooy koo xam ne kii koo xam ne kii dara mënu koo tax a rëy. toroxlu mooy nit koo xam ne dara du ko tax a rëy ci àdduna. ak lu mu mën a am. ak lu mu mënta am ci àdduna. ak lu mu foor foor foor ak lu mu foor foor ak lu mu bëri bëri doole. lu mu bëri bëri doole. moom ni moom day yemale boppam ak nit day yemale boppam ak ñëpp. waaw parce que yàlla da koy xamal ne ko ak noo mën a mel ak loo mën a xalaat ak loo bari bari xam-xam doo dara. Mm. waaw doo dara ji moom mooy. Mm. nit nga rek. Hmm. da ngaa am ay xoo et des doo dara du saaga. eh déedéet du eh nit sax nit sax ci boppam. bu hmm. buñ ko waxee doo dara dafa war a xool ndax dara mooy lan. Hmm. waaw ah kon kon ku ñu ku ñu ne euh, doo dara. waaw au lieu que nga koy jëlee saaga wala lu bon wala loole. waaw euh, foog nga xool lan mooy dara d'abord. ok lan mooy dara. Ah. baatu dara boobu mooy lan. lu ci waa ji waaw xam nga doo dara te fir saaga wula ndey. Mm. saaga wula bàyyi. néew la mm. doo julit. Mm. doo dara mooy yow munoo fexe ba dépassé li nga doon. nit nga rek. waaw loolu de am na. kese mooy doo mooy dara ji. parce que boo jàppee ne dara dara mooy damaa war a rëy. dara mooy dam ñaa war a jox sama personnalité gis nga personnalité nit a koy utal boppam. personnalité ci boppam nit moo koy utal boppam. waaw du ko ko jox. déedéet kooku combat la booy amal sa bopp. gis nga yar. teggin personnalité. tabe hmm. joxe sa alal hmm. nit a koy nit a koy nit a koy liggéey ci xolam est-ce waaw kooku moom c'est un travail hmm. interne booy defal sa bopp ndax joxe xaalis lu metti la waaye am na koo xam ne kii

ku ko soxla bu ñëwee nga jox ko ko. Mm. te du tee yàlla wërsëgam dana ko dellu si waat ci yow. Mm. mais su fekkente ne travail boobu defoo ko sa xol. Mm. gis nga yar ak i teggin. ak ku la mën a jur ci àddina bi. ak lu ñu la yar yar yar yar yar boo xasee ba am nekk majeur ba dugg ci société bi. Mm-hmm. pour nga conserver sa yar yaa koy defal sa bopp. boo ñu fëkk la. ak yar bu sa say parents mënta def ci yow. lu mu la mën a yar euh, une fois arrivé au sein de la société. nga fàq nga xam ne euh, toll nga ci jamono boo. xam ne tu dois t'exprimer. absolument euh, yar boobu noonu nga ne. pour nga conserver ko. waaw yaa koy protéger sa bopp. ah yaa koy ñu fëkk ko. Ah, parce que du du say parents bu boobaa ñooy ñëw. déedéet di di continuer naan la yar bi niñ la ko yaree. woo déedéet déedéet xam nga xam nga su xam nga base bi. mooy hmm. parents yi ñoom dafa am lu ñu lay inculquer ci yow. Hmm. léegi nag li ñu lay inculquer boo génnee ci société bi am na yeneen réalité yu koy def face. lala hmm, sa papa ak sa yaay kër ga yare la ko. am na yeneen réalité antagoniste yoo xam ne ñu nekk sa kanam. dans la société. pour nga mën a préserver sa bos mbëkkanteeg yooyu kooku góor pire ko man Euh, euh, loolee ah, xew ci société bi euh, la plupart du temps day jël le dessus sur yar bi nga xam ne boobu ngay tudd di parents yi def ci yow loolooy waral day d'ailleurs d'habitude ñu naan waa kii diw ana ay parents wam ana papam ak yaayam fan la ñu newoon ba muy def lii mën na am def nañ li war ba muy ba muy jot merci wante après y a beneen aspect waaw société bi hmm. xam nga am xaw ma Rousseau moo ko waxati xaw ma l'homme est né bon mais c'est la société qui le transforme xaw ma xaw ma nu mu ko waxati ci ca ca le contrat social xam nga xam nga nit ki da koy da nga koy nandal nandal gi moom mooy ne jox nga ko li nga ko war a jox yar nga ko judd na ci farata yàlla ak sunnas Muhammad jàngal nga ko alxuraan teg nga ko ci kaw fi nga ko war a teg dem na léegi nag soo gisee ñu ne diw di daawul tux ba mu yàgg ñu ne moo Faye de gis nañ ko muy tux nag léegi hmm. loolu yoonu seytaane newu ci hmm. déedéet kon man dama man maa préserver wul kon sama éducation ba dem ci mbedd mi ñu tuxloo ma si c'est tout c'est donc am na lu ñu def ci yow. oui euh, maintenant arrivé à un moment. oui si je comprends bien. yow yaa war a continuer euh, leg boobu noonu. merci maanaam euh, du du ñu def ci yow ñooy ñëwaat. déedéet di la continuer di tette di tette di tette ad ad vitam aeternam. déedéet yàlla sax yàlla sax bu bindee nit ki. Hmm. bu demee ba majeur yàlla da koy bàyyi ak boppam. waxatuma la ak parents yi. Hmm. léegi day da ngay foo xam ne loo defati yaa ko tey. Hmm. mais xale bi am ñeenti at juróomi at juróom-benni at ba ay 6 ans 7 ans ah, yooyu. kooku kooku lu mu defit danaan ko tey. léegi nag moo tax bu keroogee yow naan man sama jur yi mm. ndax waxadaa rabbuka allaa taabudu illaa iyaahu wa bil walidayni ihsaanan baatu ihsaanan boobu ngay tawil daal ne man kët sama jur yi euh, rafetal gi ma doon def jëmale ko ci ñoom gannaaw jaamu gi moom yàllaa ko moom may itam rafetal googu ma doon jëmale ci ak ñoom gën doon jëmale ci man naa ko aar naa ko wutal benn ximaaya mm-hmm. protéger ko ba nga xam ne du sàmba du demba du du Jean du Paul kenn mënta fexe ba. Hmm. sama yar boobu ma dellu ci gannaaw. mais loolu nag pour nga pour nga man ko. Hmm. il faut nga am njàmbaaru mën a affronter les autres réalités yi nga xamee ne. Hmm. bànneexu bakkan ca lay nekk. kaay ñu di bay ba soñu ne la kaw kaw nga. seer bi yow doo dem cinéma. doo def lii doo dugg ci kii. yow tu t'en fous. tu n'es pas branché. oui wa wa waa léegi boo. branché tu n'es pas dans l'air du temps. waaw boo <laughs> ah, comme prise rek ngay dugal. sas nga ne ku ñu ne tu n'es pas branché. ba faf. circuit <laughs> court circuit. court circuit waaw moom courant bi jàppale rek. ah waaw comme kay court circuit moom mi ngi fi kay ci ci ci prise bi kay. Ah, ah. ah parce que logique pour logique boo waxee ah da nga. wax kon nag branché ndax courant day day lakkee ah, maa ko wax wóorul. sas ñu dem ci ñetteel bi ci woon. sax wax bu xóot la. waaw wallaahi. Ah, nga dem branché wóorul. ndax courant day lakkee. waaw oustaz ñetteel bi. circuit circuit bi xam nga nu ñu ko waxee. court circuit court circuit waaw fàtte woon naa ko. <laughs> asalaamaaleykum asalaamaaleykum. oustaz Maodo Faye Nicolas. maa ngi leen di nuyu bu baax di leen jaar di rafetlu seen dio bi dio la boo xamante ni Sénégal yëpp ñu ngi leen di déglu mu nekk dio boo xam ne benn la ci rajo yi ah émission bi nag nekk na loo xamante ni sa dëgg-dëgg xam-xam lañ ciy jëlee ak satisfaction wax dëgg yàlla di dinañ ciy jëlee xam-xam en même temps dinañ ciy jëlee ay jàngat yoo xamante ni ci àddina lu làqloon kon Oustaz Maodo Faye yow ak Nicolas ñu ngi leen di ñaanal yàlla gudd fan ak wér yéen xam ni ngeen bëgg ci seen kanam yenn yàlla defal leen ko te mu jig leen jëf ah loolu de euh, lu neex la. ak ñaan la ah, ak ñaan la ndax euh, bu amee ñii di laaj ci lu leen itteel am na ñeneen ñoo xam ne seen xol sedd rek. mbokk mi ci la bokk. Euh, ne daf ñuy ñaanal rek. loolu lu baax la de. xam nga nag ñaan moom. ñaan moom lu baax la. Mhm. waaw gis nga sa yàlla na nga gudd fan na ëpp mu na ëpp fuuf sa yàlla na nga dee. Ah. waaw boo nekkee ci waaw. ñu lay ñaanal yàlla na nga gudd fan. moo war moo war a ëpp ñu lay ñaanal yàlla nga dee. waaw yàlla na nga dee ñàkk ku ñàkk teggin lay. walaay boo ñàkkee teggin. Mm. nekk ci quartier bi xamoo ku la mag. xamoo sa ndey. xamoo commencé ak sa baay. ngay rap rapi. ku wax nga saaga ko. xamoo dara. mel na dof. ñu wax la sa ñu wax la sa démb. est te nit ki nag dafa war a moytandu ko ñu wax ko démb. Mm. waaw ndax ndax ndax. ndax ki ki ki maaseeg sa wayjur ah. wala mu bokk ak moom jamono man naa xam loo xamul ndeysaan waaw loolu loolu loolu nit ñi hmm. maanaam xam nga yàlla yàlla dafa màndu ba nga xam ne dafa def ci nit ñi ku am 100 pour cent zéro faute amul ci àddina wala boog astafurla wala bu amee tam bariwul hmm. léegi nag dooyee di doomu aadama yooyu di am nit ñi di ko xam di ko nëbb yow koy nëbbal nëbb li li ngay nëbbal sa bopp hmm. nëbbal ko keneen rek waaw arab yi dañuy wax ne bul feeñal ayibu jàmbur ba noppi toog ci sa bos nag yow feeñal ayibu jàmbur ba noppi nag toog ca sa bos bañ ko la xamal dara. Hmm. arab yi dañuy wax ne loolu baaxul kenn waru koo def. beneen bi ci tegu itam mooy euh, ñaan googu euh, ab jullit moom rek la am ndax mooy ngànnaay. Hmm. mooy mooy silaaxul mu'min. Hmm. yonent bi nee na ñaan ngànnaayu jullit la. léegi nag am na feneen fu mu waxee nag ku ñaan na am na am yaqin na ñaan gi dana nangu. moo xam nga gis ko ci par A par B. mais yàlla moom du delloo. ñaan maa ngi dégg ci woy alaaji Maalik gi sama turando falaa yeqi banna man yar juuka yàllaahu falaa ban na mooy yàlla boo yàlla boo yàlla boo tas yaakaaru ku la yaakaar yow yàlla ko ki la yaakaar nag mooy loolu alaaji Maalik wax ki la yaakaar mooy ki la tàllal loxo ki la tàllal loxo nag boo sañoon loxo ya nga teg ca dara moo tax tas yaakaar yàlla bëgg ko kon nit waru koo def. kon nit du tas yaakaar. déedéet waaw loolu waaw koo gis xam nga koo gis muy tas yaakaar. Ah. dafa yaakaar ne yaakaar ci yaakaaram rek la yem. koo gis ci àdduna muy tas yaakaar. dafa yaakaar ne yaakaar. yaakaaram moom. yaakaaram. ak wala am amam. am amam ci moom la yem ci la yem. waaw mm, te boobu demeewul noonu. booy sédd xel yàlla. Mm. doo tas yaakaar euh, maa ngi woon ci whatsapp bi. Mhm. wante maa ngi gis euh, serveur bi mu ngay mu moom itam. Euh, comme dama am taabal bu bees tak ma xool fan la serveur bi. kii gis naa gis naa la ngay ñot ñot téléphone defe naa fii la. oustaz seen seen seen matériel bi. sophistiqué. waaw ah, man nekk mi boobu léegi maa ngi kii micro yi taabal bi macha allah ne ko allo ma xool. bisimilah allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam waaleykum salaam. Alaaji Malick maa ngi ziar. ñu ngi lay ziar bu baax. sëñ Kousara ah, alhamdulilah. tarkala. waaw ma ne. ah. émission bi paas xam aha ndeysaan li gën a dëgër doj waaw mooy xolof ku dajale alal wax na dëgg de wax na dëgg de ah, waaw dama ne aha alhaakumu takaasur alhaakumu takaasur waaw hatta waaw alxuraan ju wér péngale de moom suuf si mhm. adduna ak alaakare moom lépp maa la ko wax waaye li mu ci gën a problème boppam wallaahi mbiral sama wat ard kon képp koo xam ne yaa ngi xëccoo suuf di ko xañ keneen kenn moom du yàllaa ko moom te lu fi jar leen àdduna amul ndax aaya ma rek dafa tënk lépp. waaw loolu de mhm. kenn ko lu ñaaw lépp foog dañ la ko laaj sabab la. war na ko mhm. waxtaan ci aaya bu bu soobee yàlla. waaw ñu woowee te àdduna la jërëjëf. jërëjëf jërëjëf sëñ Sam jërëjëf sëñ Sam ñu ngi koy ziar bu baax euh, di bég bu baax a baax également euh, ci loolee sant ko gërëm ko bu baax a baax a baax ci euh, waxtaan boobee di sunu xarit di sunu soppe moom itam sëñ Sam Bousso. nee na nee na sëñ Abdoulaye Mbacke daana wax ne lu gën a wow aw doj mooy borom xol buy dajale alal. waaw loolu bàyyi laata ko wax wax na dëgg de wax na wax na dëgg de aw aw doj moom lu ko gën a wow bu fekkente ne waaw parce que kii dajale alal da yaakaar ne lu gé dara du génn. Mhm. nee na li gën a wow aw doj mooy xol buy dajale alal ndax kii dajale alal moom bu sañoon day am ay entrée waaye du am ay sorti mukk. wallaahi te kët lépp kët mënoo ko lekk ndeysaan fi nga koy mhm. bàyyi. Mhm. ku dee rek da nga yóbbaale mébét. wallaahi waaw waaw am na solo eh, sant ko gërëm ko eh, liy des ci serveur bi jéggalu ah, eh, dañ nekk ci installation matériel yu bees tàkk affaire yi. léegi da ngaa laal benn bouton pour coow li xam nga rek boobu ba léegi maa ngi laal affaire yi numérique la damay laal fii mu dugg fee ma dem fee xam nga techniciens yi ñëw jàpp ci mais daal lépp sant yàlla puisque dañu jëm ci anniversaire u Sud FM muy rajo privé bi jiitu ci Sénégal gannaaw ëllëg lay am 26 ans.

mais ça nous a tellement grandi aussi parce que c'était la première ex expérience euh, de la libéralisation de l'audiovisuel privé sénégalais avec euh, de grandes valeurs euh, du journalisme euh, dans cette maison qui était l'immense Babacar Touré, bon, qui est toujours immense, hein, euh, dans le sens euh, <laughs> de l'envergure intellectuelle Voilà, quelqu'un pour qui j'ai un respect euh, éternel. Euh, Ndiaga Sylla, Sidi Gueye, euh, Latif Koulibaly, euh, voilà, et puis euh, El Walid Sey, et puis tous les gens euh, de ma génération qui étaient là-bas, Pascal Faye, Michel Diouf, et puis les Reines Marie, les Maodo Faye. Voilà, c'est des moments comme ça qui impriment l'histoire et qui, euh, qui marquent des générations. Et euh, comme je dis, nous, on est sortis des flancs du Sud euh, et ça a été une formation euh, voilà, qui nous a servi tout le reste de notre vie. Et euh, voilà, donc euh, vive Sud, vive ceux qui ont cru en cette aventure au début, vive ceux qui aujourd'hui la maintiennent. Et euh, merci à tous euh, d'être qui vous êtes, euh, d'être ce que vous êtes et de continuer à porter haut le flambeau de ce plus beau métier du monde, qui est le métier de l'information. Voilà. Très belle fête. Je vous embrasse. À très bientôt. mu ngoog oustaz dégg nga de euh, kooku ma la njëkk indil mooy Jacqueline Fatima Bokoum waaw xam nga moom nag dafa baax lool sax boole ba ci groupe boo xam ne boobu sax xëy na boobu ñoom monsieur Diouf nekkee fii. ak moom mii booba après après laa ñëw. bo ndax boobu maa ngi doog a tàmbali ci nostalgie. Eh. moom day nekk dafa nekk sama jigéen. ndax léeg-léeg moom ñu waxtaan lu bare bëree bari mhm. léeg-léeg te moom moo njëkk a présenté. waaw journal ci su FM. ci Sud FM ba Sud FM di tàmbali. waaw ci baatu jigéen. ba noppi mm. tamit moom. Mm. Euh, léeg-léeg sax mu woo ma. Mm. lu lu lu bett nit ñi di ma laaj affaire julli ak ay lislaam ak yooyu. chaque fois ma woowee loolu la may wax Maodo nangam lu yàlla wax ci nangam loo xam ci nangam te loolu euh, Jacqueline ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax ku am détermination la. tey tamit moom conviction moom lu mu gëm gëm na ko lu mu gëmul gëmu ko. Mm-hmm. loolu ko yàlla defal. oustaz kooku mooy Jacqueline Fatima ko waaw ma jox la beneen. ay ah, bien sûr aywa. asalaamaaleykum wa rahmatullah auditeur Sud FM personnel Sud FM seen rajo man Ndeye Fatou si maa ngi leen di wax joyeux anniversaire. malgré contexte Covid bi tax ni mënuñu ko célébrer di ñaan yàlla rajo bi yàlla yóbbu ko fu sore sore sore sore ci mën-mën ci capacité ci lépp ñu fekkee ko ñu ñëpp joyeux anniversaire à toute la direction en commençant par euh, Baye Omar Gueye ak pour le personnel technique administratif yal na leen yàlla defal jàmm defal sutura te di ñaan yàlla tam teggin ñu fii mbas mi ba ñu mën dellu ci suñu yitte boo fa ñëwee doonte am nga sa ay diplôme wala nga nekk jeune journaliste lu mënti demee dafa am lu ñu lay sos lu lay sas lu lay sol sol boobu nag mooy nekk bac Sud FM maay le choix de la différence mooy tànneef bi nga xam ni auditeur dañ ko tànn déglu Sud FM tànn boobu nag am na lu ko waral ci sama gis-gis mooy dafa nekk rajo boo xam ni information bu fa génne ah ci kàttanu yàlla dina def nit ñi dañ koy segg seetantal ko ba doo koy wax jëkkante wuñu ngir joxe information wante dañuy am li nga xam ne mooy ndam boo xam ne ku ko déglu te nga ni Sud FM nga ko jëlee rek dina ni ah information bi de mën nañu am ya jot bu rafet ni information bu dëggu la te loolu ñi ñi yar ñooñu ko dugal si Sud defee la moo tax ñuy naan fier nekk su FM joyeuse célébration joyeux anniversaire pour vos 26 ans alhamdulilah. ndeysaan kooku nga dégg mooy Ndeye Fatou si ajaratu Ndeye Fatou ñu ngi koy. si xam nga tey da ngaa teg sama ay jigéen <laughs> ñoom ñaar ñëpp dama am ay ñoom ay relation yu yu sell. yu baax xam nga Ndeye Fatou moom euh, moom sama xarit la ndax moom nit la ko xam ne. gis nga liggéey bi moom jiite nañu fi nekk suñu kilifa. nekk mm-hmm. rédactrice en chef fii. Mm-hmm. nekk fi kilifa lool. mais gis nga dafa fonk boppam ba nga xamee ne noonu mm. ni mu fonkee boppam noonu la fonkee liggéeyam xamul caaxaan ay moom bu ne laa un c'est à un boo mm. waree def deux c'est à deux man loolu dama ko xam ci moom mm. beneen bi ci tegu tamit mooy gis nga li gën a neex ci àddina bi yàlla defal na ko ko mooy nit ko jub waaw moom ku jub la. waaw gis mosuma gis ñu ne Ndeye Fatou bëggal na kii dara. Mm. wala wala nga xam-xam ñàkk na même bu ñàkkee man na laa tooñ sax naa la eh Maodo tey nangam nangam. xam ci moom ak doyad yi. Eh. gu tax nga yàpp ko ci lenn. te eh. loolu loolu ci qualité yi gën a baax la bokk. moom mm. moom jàmbaar pire la. Mm. li arab yi moom la ko yàlla defal. aywa kon gannaaw Jacqueline Fatima Bokoum. Ndeye Fatou si ma jox la beneen. ayca ayca aywa aywa aywa aywa ne ko nii. nga xam ne et salaam salaam salaamaaleykum 404 mbaar ku ngu yabay ku mën a tëll sa kaw nga xam ne sa yoon nekku ci kooku nag ku ko dégg rek xam ne Sud fem mooy borom Sud fem ñu ngi koy souhaité happy birthday ji ko souhaité lépp lu baax rek équipe am parce que boo nee Sud FM rek mooy équipe bi ñi fi jaar ñi fa nekk ba léegi parce que c'est une grande école Sud FM ca kaw ca kanam. Sud FM jàmm ak salaam Sud FM ci information yu wóor yi su FM ci dal gi ci tey gi ci professionnalisme bi franchement ba bër ki démb rek ci événement bu tiis bi fi amoon fekk may déglu Maodo Faye ak Nico mais boo déggee ni ñu maîtriser seen bopp professionnalisme bi ànd ak dal ak tekk ak tey et puis vérifier information booy wax da ngay wax lu leer te loolu nag ku ko bëgg su su dëgg rek neexee yàlla ndax nag boo gisee nen ni a ngi euh, d'accord naa ci ni Sud FM tubar fakal la macha allah kon encore joyeux anniversaire Sud FM ca kaw ca kanam et puis auditeurs yu Sud FM yëpp ñu ngi leen di ñaanal jàmm di ko ñaanal ñëpp Nico mon frère au directeur Baye Omar mon frère à tout le monde ñoom Adda Ndeye Khady ñoom ñëpp. di fàttaliku rek guddi yu neex maanaam animation yu yu neex professionnalisme lépp rek ci Sud FM kon boog gars yi ca kaw ca kanam mucc ak xéewal 404 mbaar ku ngu yobboy ku mu ne tëll sa kaw nga xam ne yoon kenn sa yoon nekku ci <laughs> eh, daf ciy baax daal yu bu yàbb yeeg sa bañ ban yi ak yu baax yi mais ni ko foo tegatee gis-gis rek ci buy seexloo na sa xel ne yar ci Francesca ndax maa ngi fàttaliku ñoom Souleymane Boub Euh, Sud FM Gambie Sud FM Kaolack Sud FM Ziguinchor ñoom Gassama anniversaire bi su ma continuer di lim damay tere ñeneen ñi dugg kon daal de beaux souvenirs daal la ñuy fàttaliku ci Sud FM ci formation professionnelle bi. ci personnalité bi ak ci dignité bi. am na solo Euh, kooku nga dégg mooy Francesca Diafone waaw ñëw na fi xam nga sama ah. xarit la moom hmm. moom euh, daf dañuy dégloonte mag moom waaw moom dañuy dégloonte te ma ko itam euh, sama soxna la itam ndax hmm. loolu beneen hmm. <clears throat> moom da ko fonk lool ñëw na fii ne ma dama lay déglu daay man mais moom dafa fàtte ne man tamit dama koy suivre daay man parce que moom fekkante wun fii waaye xam naa bi mu nekkee sur tamit taxawaay bi nga xam ne moom la amoon parce que wax nañ ma lu bare bare ci moom tamit professeur nationalisme am hmm. waaye nag yàlla dogal moom mu soppal ma boppam rek loolu yàllaa koy def hmm. mu nekk nag nit ku yiw ku baax itam ku bari hmm. ful la moom itam donc ñi nga teg daal euh, macha allah ñetti jigéen ñi daal laa la indil tey euh, euh, des na de léegi loolu a suivre la parce que ah, semaine bi yëpp nii laay doxalee ak yow. ah bon góor ñee ngi ñëw. ayca d'accord ah, góor ñi di fi dégg ay ancien au sud. Ah, ñoom itam ñu souhaité ñu joyeux anniversaire. ci semaine bi yëpp wante it artistes yi gën a mag. Mhm. waxuma bi yëpp di ngeen leen dégg ñu Ah, oustaz loolu laa la naral ci semaine ma kontaan xam nga man loolu man man boo ko waxalee damay kontaan eh, fa jaar te fekk ma fa bari na am na ñoo xam ne xamoon naa leen lu jiitu ma fay ñëw mm. may may ñëw fii te d'ailleurs amoon nañ ay ay relation yu noble yu rafet yoo xam ne yi ñoo mm. ñëpp kenn ku ci nekk yàlla mën na dogal mm-hmm. ah, lañ séq ak moom wala la ñu yàlla boole ñu wax ko mm-hmm. parce que eh, yàlla dafa waxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko mm-hmm. xéewal yi ma def ci yow ak yu baax yi ma def ci yow ak rafetal gi léeg nag boo toogee bul soxor dee ko waxtaane ci waxin wa amma bi ni amati rabbika mm. fa fa xaddis am na solo waaw jërëjëfati oustaz Maodo Faye sant nañ ko gërëm nañu ko euh, gannaaw euh, li nga xam ne defal ngeen nu ko yéen waa direction bi euh, indil ñu matériel bu bees takk de dernière génération ñu fas yéene célébrer vingt six ans Sud FM dugg ci ak xéewal yi nga xam ne teg ngeen ko taabal bu bees micro yu bees studio yu bees macha allah ñu ngi leen ciy sant bu baax di leen ci gërëm ci liggéey bu am solo bi ñett ñi nga dégg muy Francesca Diafouné muy Ndeye Fatou Sy muy également aleykum euh, ku sant naa la gërëm naa la euh, ci loolee nga nu may également souhaiter joyeux anniversaire Sud FM qui aura 26 ans dans deux jours góor ñee ngi ñëw artiste yee ngi ñëw kilifa yee ngi ñëw ku ci ne bëgg na euh, joxe sa kàddu ngir souhaiter joyeux anniversaire à Sud FM parce que ku ci ne Sud FM am na lu mu jot a sekk ak yow te ku ci ne reconnaître nga ne rajo professionnel boo koy dee lim Sud FM ngay teg ca kaw doog caa teg keneen xanaa loolu neex loolu loolu dëgg la. jeex na ma fàttali itam waa Njàmbur ak euh, yeneen dëkk yi nga xam ne rajo bi dafa doon yegg te jamono yi mu amoon tuuti kii yëpp defaraat nañ ko. Mhm. Euh, Louga léegi rajo bi leeraat na nañ ñi. Mhm. Euh, mën nañ koo jàpp ci 93 point 2 foofule. Mhm. mu am solo lool ba ca ba ba ngay dem Saint-Louis. wallaahi am na solo jërëjëf oustaz maa ngi lay sant bu baax di la gërëm sant bu baax di gërëm également <laughs> équipe technique bi Alioune Badara Socé mu ngi ci kër gi boobu ak léegi week bi yëpp macha allah madame maa ngi ko ciy ah Socé maa ko ci nuyu bu baax a baax xam naa ne nam na la waaye euh, liggéey bi mel euh, macha allah liggéey bi am na solo ñu ngi leen ciy sant di leen ci gërëm bu baax a baax a baax personnel bi kontaan nañu ci euh, sant ak gërëm mboolem ki nga ñi nga xam ne ñu ngi ñu doon déglu fàttali leen ne li ko waral rek mooy 26 ans wu Sud te ñu war ko célébrer gannaaw ëllëg am na surprise yu ñu leen ti jàncal saa su ne noonu la ñuy àndandoo ki yéen kon jaa ngeen jëfati rajo bi raw rajo waxtaan ngangook bismillah ba suba ak jàmm viser la lune car même en cas d'échec évidemment on atterrit toujours dans les étoiles à demain ci darajay hadis yonent bi ci darajay salaatul fatih ci darajay malaikatul muqarrabin ci darajay aqtaab ci darajay afraad ci darajay awliyaau rahman ci darajay ay ak machaayix yi yàlla may mat sëkk may nu teranga bu mat sëkk may nu jàmm ju mat sëkk may nu paj yaakaar ju mat sëkk may nu wér gu mat sëkk may nu wérle gu mat sëkk may nu dund gu mat sëkk may nu dundle gu mat sëkk yàlla defal nu ko ndax yomb na yàlla